dégg nga kon nag li la war rek mooy wax soo waxee ba pare la gis moom ci loxol ci pàcc li gi la ne ku nekk ci moom walla ku nekk ci lëndam waaw ah, su neexul yàlla loo ko bëgg-bëgg nag mënul fexe ba tabarakallah ndax comme mooy sànq koo neex moo jubal ku ko neex itam laakin waaye alisina gaa yi nga xam ne ittaqaw ragaloon nañu rabbahum seen boroom nango topp seen boroom ci biir ak ci biti ñoom lay waxanteeg lahum ñeel na leen xurafun ay saal min fawqiha tiim na saal yooyu xurafun yeneeni saal mabniyatun yedi ya ñu tabax dégg yoo xam ne tajiri na daw min tahtiha ca suufu saal yooyu al anhaar yoon lay ñeent lii nag waadallahi dëxalu bu yàlla la boo xam ne moo ko dëxal ñeel ñi nga xam ne ñoo ko nangul te laa yuxlifu nag du wuute allahu yàlla sunu boroom aada randiwu dëxal bi mu la jox ñun kay ñooy wax di wàcc waaye kilifa gu doy li yàlla moom du wax di wàcc muy jàngale waat alam tara xanaa gisuloo wala xanaa xamuloo lii may bëgg a wax moom dong ko mën keneen mënu ko anna allaha naka yàlla anzala wàccee na mina samaa yi mu bàyyi koo ci asamaan sii moo ci wàccee maan taw fa salakahu dugal na taw ba mu sóob taw ba maanaam mu dugal ko yenaa bi ci ay mbell mooy ay balleekaay fil ardi su ma yuxriju topp mu saxal bihi ca taw ba zaraan mbay muxtalifan mu mbay moo xam ne aji wuute la alwaanuhu ay couleuram am comme ni ñu la ko wax yaa ko waxee lii mel ni lii mel ni boo demee ci gàncax yi gis ne couleur yi léeg-léeg day wuute su ma yahiiju topp mu jekke ko mu mujj waw mooy mu jaar la fa ngelawal jaas mu wow koŋ fa taraahu nga mujj gis mbay ma gannaaw ba mun a mu musfarra mu mujj nekk lu soon gel nga naan su walaa koy dekkeeg gannaaw subaag ŋàppati ngolóoli su ma yaalu topp mu mujj def mbay ma aman comme am poñet poñaxit waaw kon nga mën kaa ma xoñee waaye foofu li mu fiy jàngale mooy nii rek la adduna di jeexee adduna dong la lay jàngal foofu kat jëmu ci comme nit ñi mbay la xam mu bëgg leen a jàngal nii la adduna di jeexee day naat ba mu yàgg mu jekki-jekki wow jekki-jekki moñoxoo loolu lu bëgg a jàngale di ko jaaree foofu ci mbay mi inna fi dalika nekk ne ci lii ma fi tudd la zikra ak waar sëkk nag bu sëkk li ulil albaab ñeel borom xel yi nga xam ne dañuy jëfandikoo seen kel dégg nga nee naa fa man ndax koo xam ne saraxa leeral na dégg nga de allahu yàlla sunu borom sadrahu dënna mooy xolam lil islaami jëme ko ci lislaam sol ci leeru gëm yàlla foofu moom moomu ñu sol leeru gëm yàlla mu nekk ala nuurin ah ci leer sharia min rabbihi bu tukkee ci boroomam waa dana yem ak nga xam ne yàlla dafa sakk xol bi muy gàntul yàlla ñaar yi daañ yem déedéet ndeysaan yonent bi daan wax ne leeru gëm yàlla bu duggee ci xol mm. xol ba day ubbiku mm. nangul yàlla ngeen ni ñu xamee ne xol bu ubbiku na mi ngay yëg yàlla mi ngay connecté wu mm. xol baa ngi dund ci yàlla mu ne ba ci njëkk mooy al inabatu ila daaril xulut day nangoo fàttaliku yowmal qiyaama fu mu toll wa jaafa dégg ma wala wa tajaafa an daaril xuruur nangoo it sori àllaaxira xaw ma avan nangoo sori àdduna ak it di préparé dee avant dee di ñëw te préparé di dara lu li ngay jëfee na sell rek hmm. loolu rek mooy préparé di amul leneen nag hmm. li ngay jëf na yàlla dong tax nag hmm. loolu dong mooy préparé di nag amul leneen lu ñu koy préparé di loolu la di ne lii saa bu ko nit dee dund daal na yëg ne mi ngi avancé ci wàllu yàlla waaye fa waylun mbugal lil qaasiyati ñeel ñi nga xam ne aji wow la xulubu seen xol yi min zikrillah ci alquran yàlla ji ñàkkaa nangu moo tax duñ seen xol yi dafa wow mbugal nag ñeel leen ñoom ulaayka yooyu la nga xam seen xol dafa wow ba alquran mënu caa dugg fii dalaal ñi ci cànkute mu bii nun gu sori dëgg lool dégg nga allaahu yàlla sunu na nazala wàccee na ahsanal xadiis waxtaan wi gën a rafet ci waxtaan yi kitaaban mu téere mooy alquran mutashaabiha xam ne aji nuroo la ci ay maana ak baat ah, ci xeetu balaaxa bi xeeti ijaas bi ci am ah xeetu xeetu ba mu jeex nee man mii maa def loolu man yàlla borom bi dégg nga mutashabiha dégg nga kon nuroo googu sunu borom nee na maa ko ci def ah dégg nga aha nuroo ci wér geeg maanaa yeeg lépp daal nee na maa ko ci def masaaniya mu nekk lu ñu ñaar ñaar moom alquran ndax da nga ciy fekk digge ak tëkku bég le coupé lenn lu ne maa ci def mu nekk ci ñaar ñaar suñu borom nee na man maa ko ci def hmm? waaye nag alquran jooju tak shaayiru dana ci kotomoo minhu ci alquran ci tëkku ya juluudul ladina hmm. dere gaa yi nga xam ne hmm. yaxshaw na daañu ragal bu baax a baax rabbahum ñu ragal seen borom de bu alquran de jug moom dañ ciy am beneen dégg bu kawe lool bu wuuteeg dégg bu suufe lool hmm? dana kotomo kotomo mooy lu banku comme der boo xam ne dafa tooyoon nga teg ko tàllaloo ko ba mu banku wax kotomo dégg nga <laughs> wala xam nga wolof deru xar boo fees bu fekkee da nga fees ci tooyaay bi te déndloo ko nii nga bàyyi ko leem ko teg ko ne su woowee du sal du sali mukk mbaa bu tàllee da nga kaa dugal ci ndox ma boobu loolu mooy coton dégg nga waaye su ma taliinu topp dana nooyee walla nga dana dalee juluuduhum seen derya ya wa quluubuhum ak seen xol ya lu koy dalal mu ne xanaa ila zikrillah jëm ci fàttaliku tëkku yàlla yooyu ak di di dige yàlla yooyu mu dige ci aljana suñ jàqee ci tëkku ya daal di ñëw dalee seen xel ci dige yi ndax tëkku lu safaanu dige mooy lu tabarkàlla maanaam daal ñoom daal la Seexul Xaaj doon wax janaay xaw fi war a jaanaxoo maaliki tir waaw sooy dem ci yàlla nee na ñaari mbagg nga fay demee mbaggum yaakaar ak mbaggum ragal nee na nii la zalika bii di alquran hudallahi mooy njubug yàlla gi kuy wut njub ne da nga fiy teggi alxuraan namu nga leneen lu dul njub yàlla moomu yahdi mooy gindi man yasaaw ku ko neex bi ci alxuraan jooju waaye wa man yuli ana kan mooy réerale déedéet waaw kan mooy réerale ah, képp koo xam ne réeral na ko allahu yàlla képp koo xam ne réeral na ko moom yàlla fa maa lahu déet muy ñeel kooko min haadin yàlla ku mu wàcc raay bi dama ne kenn mënut laa yéegal raay bi afa man ndax koo xam ne yattaqiihi yattaqii waaw dana dana dana ragal dana dana dana kii défendre dana moytoo daal bi wajihi ci xar kanamam sola la adaa mu ñaaw a ñaaw a ñaaw waa ki nga xam ne yàlla daka musal déedéet maanaam yettaqi la de wala yaltaqi yettaqi dana dajeeg dajeeg nga koy bi waj yi ci xar kanam nga muy dajeeg sol adaa bi mbugal mu ñaawa ñaaw yowmal qiyaamati waa dana yem ak ki nga xam ne aljana mooy tabbi waayam ñaar ñi daañ yem duñ yem dégg nga ko baax wa qiila ndax kanam xam nga xar kanam tabaarakallaahu dafa bokk ci cëri doomu aadama yi gën a for ci cëri yi la nga dégg góor gi bu saaxo doon wa ne nit soo koy dóor kur fañ moom mën laa jox fu ne ba des xar kanam gi loolu nga gën a foor la gën kaa bëgg yàlla moom bu jaama ko jotee lay wax a ci jëlal loolu dóoral ma ci suuf hmm? yàlla moom lay wax ne jëlal loola dóoral ma ko ci suuf gis nga ko bu baax a baax ma nga wax ah, waqiila waxeef na di li zaalimi ne ñeel tooñkat yi duuqu mos leen maa kuntum lépp loo xam ne nekkoon ngeen taksi bu di ko fàggu ci jëf ju ñaaw kazzaba weddi woon na allazina gaa yi nga xam ne min qablihim ñoo leen fi jiitu woon waaye faataahum ñëwal na leen aladabu ay duma min haysu laa yasurun fu ñu ko dul xalaatee mukk fa azaaqahum mosal na leen allahu yàlla alxisya gàcca façon mbugal mu ne mosal nañ ko fi hayaat dunya te wala adabul axira nag mbugalum alaxira ëllëg yowmal qiyaama ah wax dëgg yàlla damaa réer gisuma ko de akbaru moo gën a màgg lawkaanu suñu nekkoon yaalamoon di ka di di xam hmm. akbaru lawkaanu yaalamoon nee na suñu xamoon la ñu war dajewaate ci kanamu yàlla moo gën a màgg fuuf hmm. ndeysaan nit yàlla ba wu ñuy wax sibli nee na jàng naa ñeenti ci junni xadis yi moom mokkal waaye daal ñeenti junni xadis yooya ba ma leen seetantalee benn dong laa gis ni mën na maa jëriñ fii mën ma jëriñ fële ñu nekk mooy ban mu ne yent moo ne amal li dunyaaka bi qadri maqaamika fiiha te looloy dëgg wa amal li axiratika bi qadri baqaayika fiiha wa amal lillahi bi qadri xaajatika ilayhi wa amal linnaari bi qadri sabrika alayha mooy dëgg liggéeyal sa àdduna comme niñ fi bëgg a saxee sa laaxira comme ni nga bëgg a desee àlaaxira waaye yàlla itam liggéeyal ko comme aajo bi nga am ci moom waaye it sawara soo koy liggéeyal liggéeyal comme liggéeyal ko comme la nga mën a muñu sawara rek tuuti nga fa bëgg a muñ defal bàkkaar bu tuuti da nga faa mën a muñ lu bëri defal bàkkaar bu yaatu loolu rek mooy wax jakkat nii rek la kon nag ma ngoog dégg ko sunu borom nee na wala qad naa defal nañu li naa si ñel doomu aadama yi fi hada alquran ci alquran ji ñoo leen ci defal masalan aw yeete xaw min kulli masal ci bépp yeete bu ñuy jàngatee laallahum ndax la ñum yatazakkaruun nee na alquran ji na quranan alquran la arabiyan bay jug arab nekkul soose nekkul bambara nekkul wolof nekkul français itam gayra zi iwajin déet muy borom lënt lënt moom alquran amu ci lenn lu lënt lépp leer wala nga ne muy borom dëng-dëng waaye mooy lënt lënt rek laallahum ndax la ñoom nit ñi yettaquuna ñu mën a moytu ragal seen boroom gën a góorgóorlu looloo tax dégg nga yettaquun dara ba sadd na ba tey defar na allahu yàlla kuy bokkaale yàlla ak leneen mu joxe ci misaal masalan aw yeete nee rajuloon benn waaye ngi nii fii nekk na ci waa ji suraka ay bokkaale mutu saaki yi naqari deret benn surgaa ngi nii ay njaatige ay patron yu naqari deret seq ko te kenn ku ci ne dix heures ba dix heures nga koy soxla kooku est-ce que am jàmm déedéet est-ce que ak benn surgo bi nga xam ni benn njaati njaatige képp la am daañu yem mooy kuy jaamu leneen lu dul yàlla ak kuy jaamu yàlla kese kese kese du ñu mës a yam lii rek la bëgg a wax. rajo rajo lan ak beneen waay boo xam ne salaman bu mucc la nga xam ne benn njaatige képp la am li rajo lu ñeel benn waay boo xam ne moom dong mooy njaatige sunu borom ne waaw dama leen di laaj hal yastawiyaani ndax daañu tolloo ñaar ñi masalan waay daañu tolloo déedéet lii de la bëgg wax dégg nga ko bu baax. Eh, ah, borom ba yes duñ tolloo nag mu ne ah alors kon xam ngeen ko sant yàlla kon lépp jàmm waaye nag ban li fi nekk mooy aksaruhum li ëpp ci nit ñi laa yaalamuun xamuñu dara dara ci li ñuy def innaka naka yow sallallahu alayhi wa sallam aji wàcc ngab liggéey waaye wa innahum naka ñii di la yéene dee di la ko ñaan guddeeg bëccëg subaa ngoon ñoom itam di ma yituuna di doo leen fi bàyyi di yàgg-yàgg ci biir ñenn ñi sax ñu la njëkk dem pour nga xam ne li ma lay wax leer na ndeysaan Yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa mës ci toog ba mu yàgg xam ne dee moom ñëpp ciy jaar ak façon boo mën a dee rek dee day am Xasan ak Xuseyn ñëw di foo ci kawam Jibril ñëw indi ñaari biteel biteel bii deret moo ci ne bii tooke moo ci ne mu ñëw ne waaw yenent bi est-ce que xam nga deret jee tooke gi yenent bi ah, loolu xam nga ko mu ne waa li ma lay xamal rek pour nga delloo si sa xel mi ndax sa sët yaa ngi foog yow ba xaw la fab bi nii kenn kii dañ koy rey moom moom deret ji te mooy Xuseyn ci des tooke la jaa ko posane loolu jàng ko Seydi Hadj Malick mu jàngale ko ca laam yëba di wala ca keneen kële bu sëy sax jàngale ko yaakaar naa ci xam si yëba hmm? kon nag addunaa ngoog kon nag muñ nattu yi ah muñ rek comme na nga bëgg a saxee ci mbir ma rek isbir li kulli musibatin wa tajallat waaw waalam bi anna al mara xayru muxalladi wala xayru muxalladi noonu lay demee te nag summa innakum topp nag yéen nit ñi yowmal qiyaama ci bis taxawaay ba inda rabbikum fa seen borom taxta si taxtasimuun way jàppante ngeen foofa di xuloo kenn ku ne bëgg sa morom xàq jam la yoreel mu jox la ko ci atadruna manil muflis yonent bi jàngale woon na loolu ndax xam ngeen ku ñu sisir saxaaba yi expliqué moo leen du noonu ngeen ko expliqué ku ñu sisir daal mooy koo xam ne julli woon na julli yu baax woor woor yu baax aj màkka na asaka lépp na waaye daan saaga nit ñi daan tuur dere ci nit ñi lekk alali nit ñi dóor rek la fi nekkee woon gis nga yiwam yu baax yooyu ñam daan dóor ci àdduna ñooñu lañ koy jox kon ñu ngay coowo dégg ne fa man azlamu kenn gënuta mën a tooñ ci kaw suuf mim man ci koo xam ne kazaba weddina alallaahi ci yàlla ba ñemee askane yàlla doom wa kazaba mu fen loo weddi bi siddiq ci alquran is jaahu ba ko alquran dikkalee mu ne lii du dëgg ay dóor la suñu borom nag nee na alaysa fii jahannama xanaa nekkul sawara soo ñuy wax jahannam mas wan di tafuwaay lil kaafirin ah kay foofu mooy seen wàccuwaay ñoom dégg nga ne wallazi ka nga xam ne ja indi na bi sidq ci dëgg gi te moo yenent bi wa saddaqa dëggal bii ci moom almuttaquun way ragal yàlla yi ulaaka yooyu la gaay hum ñoom almuttaquun ñooñu rek ragal seen borom dégg nga lahum ñeel na leen maa yashaa'una lépp loo xam ne bëgg nañ ko ñoom ñi ragal yàlla inda rabbihim fa seen borom ëllëg yowmal qiyaama dégg nga zalika lii mu fi tudd aljana jooju ak yami ànd ak yi koy gunge jazaa'ul muhsinin mooy fay ñi nga xam ne dañuy rafetal seen digganteeg seen borom maa def lii nag li yukaffira pour na far faral allahu yàlla anhum ci ñoom aswa alladi ñaaw ñaawi gaa ya nga xam ne amilu ñaaw ñaawi jëf yi nga xam ne nekkoon nañ di ko jëf wa yazi wa yajisihum pour mu fay leen ajrahum seen fay bi ahsani maa ci nu gën rafet na nga xam ne kaanu nekkoon nañ yaamalu ndax benn ñu fay la fukk kay ba juróom-ñaar téeméer wax dëgg yàlla li la fay moo ëpp doole li ko joxe yow alaysa allahu xanaa nekkul yàlla bi kaafin muy aji fegal abdahu jaamam yonent bi xaa nekkul ne yàllaa kay défendre wala jaam bu mu dina xaa nekkul ne yàllaa kay aar aha kay kon nag liñ lay menacé yow mi woote jëme ci yàlla buñ la tiital seen menace yooyu du jàll ci suuf lay tegewaat neewa yu xaw yi fuunaka daañu la xupp di la tiital bi ladina ca gaa yi nga xam ne min duunihi te duñ yàlla naan ba bàyyiwul yàlla yi boo bàyyiwul bant yi boo bàyyiwul lii boo bàyyiwul laa daa nga alku daa nga dof daa nangam nangam ñu la koy tiitale te yooyu mënuñoo jëriñ mënuñoo lor wa man yudil képp koo xam ne réeral na ko allahu yàlla famaa lahu ma waxaat ko kooku mënul am min haadin kenn ku koy gindi benn aji gindee bu ko mën a gindi ba tegaat ko ci aw yoon dégg nga ne waaye wa man képp koo xam ne gindi na ko allahu yàlla teg ko ci yoon wan ko lu baax mu cay góorgóorlu guddeeg bëccëg subaa ngoon dama ne fa maa lahu déet muy kooku di am min mudillin ci yenn aji sànke yenn aji réerale ju ko mën a réeral la ba ko yàlla tege ci aw yoon dégg nga ko kon nag jëlal sa yitte yëpp mu nekk benn yitte mooy bëgg yàlla yàlla fegal la lépp rek lii rek la sa yitte yëpp def ko mu nekk benn yitte te mooy yàlla alaysa allahu xanaa nekkul na yàlla bi azizin muy aji not ci nguuram aha kay not gim not moo tax mu bëgg mu am zintiqaamin kay boromi duma ay noonam aha kay wala in saaltahum ginnaa boole laajee man xalaqa samawaati kan moo bind asamaan yii wal arda wal arda ak suuf soo leen laajee ku bind asamaan ak suuf la yaqulunna daañu wax ne allah suñu tontoo te wax dëgg de daañu wax ne yàlla dong moo ko bind yàlla dong moo moom dégg nga yàlla ko bind yàlla ko moom xul loo leen afaraaytum xamal leen ma maata doon yii ngeen di jaam min duni laa du yàlla dama leen di laaj yii ngeen fi samp di leen jaam te du yàlla waa bu yàlla na mee ci man safaan ana kan mooy taxaw ne safaan soos du am am na fi amu fi ndax nit moom ñaari xaaj lañu ñi la bëgg ak ñi la kontur ñi la kontur mënuñu daara mënuñu laa jariñ daara daara dara ci loo xam ne yàlla bëgg na la kaa jariñ waaye tam li la yàlla nar a teg mënuñoo fexe fexe fexe ba loolu yàlla du la ko teg soo teelee xam lii daanaka li wala fi naan ragal ci yàlla la bokk bu booba defal la la war rek dégg in araada ni ndegam namu na ci man bëgg na ci man allahu yàlla sama borom bi duruñ ci benn xeetu lor benn xeetu problème dama ne hal hunna déet këram yii wala nit ñi ci seen bopp kaa si faas dur ñi mooy wuññi lor googu mënuñu ko aw araadi wala mun a mu ci man bi rahmatin ci yirmaande na maa defal ay xéewal hal hunna déet ñoom mum sikaatu rahmatihi ñuy woy mën tee yërmaandey borom boobu ak xéewali borom boobu ndax mën nañ ko mënuñu ko comme nag ñoom mënuñoo jariñe mënuñoo lore nit ñi mënuñoo jariñe mënuñoo lore demal ca kay jariñe ak lore te mooy yàlla xul ne leen xas bi ya doy na ma sëkk allaahu yàlla alayhi ci moom yàlla yatawakkalu day sukkandiku al mutawakkiluun ñi nga xam ne ñooy woy sukkandiku yi ci moom kon nag booy wéeru da ngay wéeru ca gannaaw borom daya ñu naqari deret dégg nga xul waxal yow yenent bi neen yaa xam yéen gaa yi yaamalu jëfandiku leen ala makaanatikum ni ngeen ko gisee tam wóor ko ne ñoom niñ ko gisee baaxul xam nga kon yaamalu ji amar ji liñ la waxoon rek liñ la waxoon léegi ci tahdid bi moom la rek la moo fay doxaat da leen di xupp rek inni man rasulullahi amilul aji jëfandikoo laa ni ma ko gisee te mooy ni ma yàlla sant fa sawfa mun daa ngeen xam nag maag yéen kan moo ci nekk ci dëgg ak ku ci nekkul ci dëgg mbir mi dana leer wa man yaati ana kan lay ñëwal itam adaabun duma yuxsiihi boobu dana ko gàccaal wa yaxilu dana wàcc alayhi ci moom adaabun mbugal moo xam ne muqiimun aji saxla ca moom mbugal mu dul dakk ba faw ñu nag yéen kan la ko ci yàllay dana leer dégg nga ko baax nee na innaa nun yàlla anzalnaa wàccee nañu alayka ci yow rasulullahi sallallahu ñoo wàcce ci yow alkitaaba alquran li naa si nit ñi bil xaqi alquran nañ kaa wàcce pour nit ñi dund di ko jëfandikoo fa man ihtada képp koo xam ne gindiku na cini ni alquran di jàngalee defalu ko kenn fa si boppam dong la gindikoom googu di ñeel waaye man dalla képp koo xam ne sànku na wàcc raay bi fa innama yadillu duma lu dul sànkul na alayha waral boppam yow nag waxuñ la nga forcé kenn ci njub waaye yooyu da ngay bàyyi xel ne booba xeex amagul waaye ba xeex amee kay loola dakk na wa anti anta déet yow yenent bi bi wakiilin nga leen di aji garde alayhim ci ñoom ne ko ku leen di forcé ci dara bàyyi leen noonu ba mu ñëw rek yàlla nag tabaarakallaahu nee na mooy rey nit ñi ni tëdd jaaree fa du ñëwaat du de du ni tëdd heure yeewu jot yàlla jël ruux gi delloowaat ko ndax ruuxu jullit saa bu doomu aadama dee nelaw day yéeg guddi gune ne dem ca suufu aras bu fekkee ne ànd naa njàpp moo tax ñuy bëgg saa booy tëdd nga ànd ak njàpp su ko defee su àggee foofa borom bi may ko mu sujjóot léegi nag bu fekkee da ngay tëdd ruug bi demee te àndut ak njàpp yow ba ngay tëdd ànd ak njàpp kenn du ko jox autorisation mu sujjóot foofa te bu ànd ak njàpp itam ñaari gént yi ngay gént yàlla mën la defal sutura mu nekk ay gént yoo xam ne lu la sama borom di wan la nga xam ko nii la lii lii la yàllaay def loolu waaye nag bu yooyu amul ah tabaarakallah la yàlla xam doy na te dee nag dafa nuroog nelaw dafa nuroog dee ndax xam nga dee amatul waxtaan amatul añ amatul toog amatul tëdd amatul dem ngénte booy nelaw doo dem ngénte di booy nelaw doo lekkati booy nelaw doo waxtaanati doo seetaanati télé doo toog gis nga kon moog dee gis nga du nurooye kon moo tax ñu naan nelaw mooy rakki dee ba dégg loolu allahu yàlla sama boroom yatawaffa mooy faat al anfusa bakkan yi xiina mawtiha jamono boo xamee ne heure jot wa mooy faat allati bakkan yi nga xam ne lam tamut seen délai jotagul fii manaamiha dégg nga de su ko fa yumsiku dana jàpp allati bakkan ba nga xam ne xadaa atte na alayha ca bakkan ba almawta bakkan bi nga xam ne heure di am jot na moom du yeewu ca nelaw ya wa yursilu mu yabal yee al uxra beneen bakkan ba nga xam ne jeexalagul mu bàyyi fi mu yee ko ñu delluwaat ko ruugi ilaa ajalin jëmba ba cib dig musamma ba di bañ tudd mooy fa mu war a dee mu dee fa sama borom ne na maay def lii inna fi zalika nekk na ci lii ma tudd laatin kiimaan buy wan ne yàlla mën na lu ne waaye li xaw ne ñi nga xam ne yatafakkaruun daanu xalaat xalaatu waaru dégg nga yatafakkaruun neyaami taxasu wala ndax dañoo ut ñoom sufa ay rammukat yoo xam ne ñoo leen di rammu ci yàlla ci niñ koy waxee min duni la daa am ñu leen di defal intervention ci kanamu yàlla ñoom de loolu lañ wax xul la leen a ah, ñooñu ndax dañ leen di ram ñi ngeen samp ne dañ leen di ram ah ndax ñooñu dañ leen di ram walaw kaanu doonte ñooñu nekk nañu laa yamlikuuna amuñu benn pouvoir shay an dara ca ramu ga Hmm? ram mu koy bali ñu ko def day fekk borom bee joxe ndigal waaye bu borom bi joxee gul ndigal kay tabaarakallah hmm? la borom xam-xam ba wax rek ne na doomu aadama moom day tiituroo fukki mbir fii ci àdduna waaye fukki mbir yooyu benn du ci jëriñ ci àllaaxira alal daga koy fii bu fekkoon lu koy jëriñ la kon xaarul lab ci suuf de fa xasaf naa bihi wa bi daarihi arda njaboot bu fekkoon ne day jëriñ comme ni mi day jëriñ ci comme ni mi jëriñee fii ah duñu wax yaa Ibrahima aarit an hada ci ñam doon defal intervention bu fekkoon ne taaritam day tax ni muy jëriñee fii noonu lay jëriñee fee yow ma tabyadu wujuh wa taswadu wujuh kon bu waatu am wala bu fekkoon ne agramu bi tax ñu indi wax ji fii intervention ni muy jëriñee fii noonu lay jëriñee fii loolu na fa yomb ko noonu dama ne du fi indi innaka laa tahdi man ahbabta pexe bu fekkoon ne day jëriñ ci àllaaxira comme ni muy jëriñee fii wa makru ulaayka huwa yabuur fasaaxa ak am éloquence jekku wax bu fekkoon ne ni lay génnee fii ci ay barabi xate-xate nunu la cee génnee fële fële moom la yatakallamuuna illa man nazina lahu rahmaanu ku ma jël kàddu gu ne ba ñuy xam ndax fasaa nga ak fasaawoo day fekk ñu jox la ko waaye bu ñu la ko joxul nu ñuy xamee ndax fasaa nga wala fasaawoo dégg te tedd nga bu fekkoon ni muy jëriñee fii noonu lay jëriñee fële kon yàlla du wax abu jahli ko zuq innaka antal azizul hakim innaka antal azizul karim kon xarit itam bu fekkoon ni muy jëriñee fii noonu lay jëriñee fële al aqillaau yawma idin baaduhum li baadin aduwwun illal muttaqin dégg nga bu fekkoon toppaate te ka ngay topp tegewul ci dëgg iz tabarra alladina tubiu min alladina tabaau juróom-benneel mooy as yax bu rëy bu fekkoon day jëriñ fii ko ni muy ne lan tanfaakum arxaamukum wala awlaadukum yawmal qiyaama kon yooyu moom bu yowoo nit ñi teel kaa xam te daw génn kon law kaanu walaw kaanu laa yamlikuuna shay'an laa yaaqiluun qul la leen asabaatu am rammu intervention ñu dugal yëpp yàlla doo ko moom dara du ci am lu dul ci nammeelu yàlla lay ame lahu ñeel na ko moom borom bi mulku samawaati moomeelu asamaan si wal ardi ak suuf summa ilayhi topp ci yàlla itam turjaauna lees leen di delloo yéen ñëpp fa ngeen di mujj teere ji dégg ñëpp ci moom ngeen di mujj teere ji kon nag gaawal nee wa ila zikira bu fekkee tuddeef na allah yàlla wahdahu moom kese kese kese kese mm. ngay jàngale yàlla kese moo xam ci conférence nga nekk mm. wala fu ñuy waxee yàlla ngay jàngale yàlla kese di wax alquran kese kese kese mm. daa gis isma asat nga dana foñu qulubu alladina xoli gaa yi nga xam ne laa yuminuuna gëmuñu bil axira <laughs> ay ustaas jàngoo kenn musu ko dégg kenn musu ko yàlla dafa ma sa wax yént yàlla Moussa ne ko soo bëggee ma ànd ak yow foo mën di ne dee ma sujjootal boo bëggee ma dëkk ci sa xol bi del sujjoot ngir man mu ne ko naka ngay dëkkee mu ah li ma xam daal mooy képp ku ma fàttaliku tudd ma tudd la képp ku ma sàkku fekk ma gis ma fa ma doon rek képp ku ma wut daal daa ma gis rek ma ngoog kon nee na ñi nga xam ne buñ tuddee yàlla kese kese kese seen xol day foñu ñu naqari deret mel ni ko énervé mel ni ku dérangé wu ci wax yàlla ji nee na loolu koo ko gisee pas-pasam des a digganteem ak boromam wa yaa dukira bu fekkee tuddeef na allazina gaa yi nga xam ne min duunihi du yàlla maanaam boo fu ñëwee dina til ay xuraafaat ay folklore lu ne ida ci noonu hum ñoom nit ñi yastaba siroona ñu bég lool tey fottu su boole si nii la ci ustaasaan def <laughs> kenn mosoo dégg ñu bég lool ci lool kon ne leen allahuma yàlla yow yàlla fatira samawaati yaay ji fente asamaan yi wal ard ak suuf aalimal xaybi yaay aji am xam yu faddu yi yow yàlla wa shahaada ak yu teew yi yow moomu anta yow sunu borom taxkumu da nga atte euh, bayna ibadika sa diggante jaam ji fii maakaanu ci lépp loo xam ne nekkoon nañu yaxtalifuuna fiihi doon ci wuute ak a juyoo dégg nga de.